l'histoire retiendra. <laughs> Mais ouais, ouais, ouais, ouais. Hmm. l'histoire retiendra. En tout cas, c'est une tradition républicaine. Euh, cérémonie bu mel passation de service pour wane ni véritablement lenge mom, moom mom, moom nekkatul say loxo maintenant euh, tax àdduna fàllu lépp dafa war a rafet aussi parce que boo xoolee waxuma sax ñoom ñaar mais le cas de euh, Issa Sall ak Maître Tal. ak Maître Tal. Tall yow xam nga seen jaar-jaar Maître Tal, pratiquement sax daa moom laa mos a dégg xaw ma Issa Sall mu wax ko bi muy takk soxna pratiquement lépp ci loxoy kii la nekkoon. Hmm. il pare que sax ba muy jàng mosoon na nekk si si si si loxo loxoy euh, Issa Sall mais gis nga hmm. politique ñëw dugg seen diggante fàllu ba am lu mu fa xaw a créé tuuti yàq hmm. politique du nooneel du noonanteel xam nga c'est bien euh, Fadilou Keita un homme qui connaît véritablement service bi nga xamante ni jox nañ ko. Hmm. parce que lii la li la jàngi itam li la xam. Fadilou Keïta c'est un technocrate xëy na peut-être nag c'est un homme très humble. très boo xamante ni boo boo ko gisee peut-être mën nga bañ a lire image boobu ci moom moom baykat la te day bay ah xam noonu xam nga non kii euh, noonu la gaa laa Fadilou day day yar day élever ay xar hmm. di ko jaay chaque chaque tabaski. Hmm. te pourtant c'est un gars bardé de diplôme yaayam xam nga fi mu jaar. Donc je pense que maintenant, c'est une image euh, qui veut dire beaucoup de choses. Hein. alors euh, mi ngi donc di ko ñaanal yàlla na yan bi daal di oyof exactement ki n'a xam ne que euh, mm-hmm. Fadilou Keita dorénavant moom moo nekk li nga xam que directeur général bu n'a nga xam que caisse de dépôt et de consignation ti dis nag euh, jokkateen li nga xam ne que moo alors Cheikh ça ça lu n'a pas xewoon exactement tamit si li n'a xam ne que

fee yi nga xam tam jotoon nañ ko def peut-être pour euh, jox. exemple ah mais mooy yoon Fallou mooy yoon parce que li ñu doon def itam teguñu ko woon fenn. nag hmm. nañu waxante dëgg. lii euh, DGE li mu def tegu ko fenn moom mii la def tegu ko fenn xëy peut-être fa ko ci bëgg-bëggu président Macky Sall la rek ñëpp demoon nañ ba xam ni. non ñëpp xamoon nañu ni Fatou Fallou affaire bi c'était flagrant quand même. Hmm. dañu mobiliser pour combattre un opposant politique. c'était ça la réalité des choses. Hmm. Lo xamanteni amuñu ci ben sañ-sañ amuñu ci ben droit. tu as vu. Hmm. logique boobu la Issa Sall mi nekkoon le la la fal nekkoon. loolu nag mooy deug bi ah. hmm. qu'on le veuille ou non c'est ça la réalité des choses. ils étaient tout simplement sous la volonté du président Macky Sall. bi nga xamanteni tous les euh, moyens possibles pour combattre Ousmane Sonko. maintenant l'administration administration bi mom lañ doon parce que ne savons concevoir parce que li lay wan ni dañ ko xex mais biñu des dem demee ba ci euh, ba conseil constitutionnel. Hmm. valider yenn yenn yenn dossier candidature mais gis nañ ci après ay candidats yo xamanteni ni candidats yoo xamante am nañ euh, attestation caisse de dépôt et de consignation am nañ fa seen attestation te seen ay dossier manquant. na hmm kon nous avons ñom motif bañu nous vraiment motax mënu attestation c'était pas un motif valable donc Linux ça doit servir de leçon aux gens de l'administration également mm. qui doivent comprendre aujourd'hui que ni administration cela ne veut pas dire que également sous euh, sous l'autorité d'un chef bi nga c'est un chef capricieux. donc yaa ngi xaar li nga ne que moo justement ay poursuites wala que du daal leen siy mais dañoo war a déglu. Hmm. parce que oui non non da le règlement institutionnel bi loolu yëpp indi règlement institutionnel même le Fall il doit hmm. des explications. Hmm, surtout Thiendella. ñoom ñëpp. Sénégalais loolu ñu koy oui national. yooyu yëpp dañ il des explications aux Sénégalais fan lañ tegoon acte maintenant s'il mérite des sanctions on va les sanctionner tous. Hmm. parce que loolu yëpp fàllu du pour soxor a tax ñu wax pour nangam c'est pour faire décourager les autres c'est important c'est pour faire décourager les autres parce que cela ne doit pas ne doit le waratul répéter dans ce pays. alors c'est clair. donc maintenant, non exactement Je ne léegi moom ki nga xam nekk moo di Cheikh Issa Sall ak ki na xam justement. Euh,

personnel bi tey Serigne ni soulagement épanouissement hmm. côté li nga que personnel bi. comme mais comme rek bi président Macky Sall mais c'était mais hein, mais mais c'était un ouf de soulagement. Hmm. ci nit ñi nit ñi dañu gëna sawar nit ñi dañu RTS loolu la di RTS Racine Tala moko la ni ñaata revendication syndicale nga dégg biir RTS ci jamono yee ñu génn ci ñoo xam ne ñu ngi doon wër les plateaux de télévision là di dénoncer ni ni ni euh, ni euh, Racine Talla nekkee foofu RTS Racine Talla yow gisoo ko en pleine émission mu woo ay journaliste di leen recadrer dem na ba ci biir ba ci biir plateau yi ñuy def amul kenn ko osé tudd turu Ousmane Sonko un opposant politique ku ko fa tudd ñu dàq la ñaata nit lañu yóbbu frigo ñii ñu dàq leen moo tax Pape Alé dégg naa si intervention tuuti mu ni ñi nga xam dañ leen dañ leen dàqoon maanaam ñii demoon dinañ del si mais ñi dem mooy ñit nga xamante ni dañoo demoon non dañoo war a del si te entre jot na ay CV yu bëri ah nee na privé bi ñëpp souhaité dem RTS ah ah mais euh. ah RTS moom euh, Euh, RTS entreprise bu bu am solo la. mais ñi demoon dinañ ñëwaat sëñ c'est-à-dire maanaam c'est-à-dire euh, je veux citer ñoom Rougier Touba. ñoom ñëpp euh, ñoom ñu jëlee woon foofu ndax Ousmane Sonko. waaw mais injustice lañ leen fa génne woon mu ngi mel ne kii kii rek capitaine Touré xam nga finalement il a été réintégré. Hmm. réintégré ak ñeneen ak ñeneen. le le le le nouveau. il a été capitaine Touré. il n'a pas été réintégré. non non non non non non non non non non dama juum si capitaine du capitaine du capitaine Touré. maintenant le gars là n'est que justice également. Euh, Ousmane Ousmane Diagne Ousmane Diagne. Euh, général Baptiste Sitting. général Baptiste Sitting. Hmm. ñoom nous boo xoolee par par exemple de nañ leen tey ci seen ay services delloowaat nañ leen joxaat leen ay responsabilités parce que nous nous injustice la ñu dund ci nguuru Macky Sall. maintenant je pense que c'est une logique bu nga xamante ni continuer Pape Alé Niang bu ce que ce ce qu'il doit faire dans un premier temps. mooy ñi nga xamante ni dañ leen fa génne woon te injustice rek jure juróon ko mooy mu indiwaat leen mu indiwaat leen fexe nag bërëb bi noyyi parce que RTS noyyi wut woon dañ leen a tàncoon y a des journalistes très qualifiés yu fa nekk fa yow fàllu yu am xam-xam mën liggéey mais mënuñu woon def seen liggéey convenablement parce que directeur bi moo leen tànc Racine Talla ñaat nit la fa dàq indi fa ay nitam def ko yëfu boppam xam nga loolu dafa ñaaw. Maintenant, notre pape Allé doit venir avec des réformes systémiques. Alors, en ce sens-là, nous avons nous indiquons len. def ay réformes fexe ba nit ñi aussi ku si nekk mën a sentir sa bopp ci bërëb bi ku si nekk ñu bàyyi la nga liggéey opposition bi aussi tamit mën fa am dugg-dugg parce que opposition bi pour la plupart gisoon nga ni sen ñew RTS lu jafé won la. lu jafé won parce que mu koy wax. non lu jafé won la euh, Cheikh la couverture justement de euh, ces événements du état du Sénégal def mais c'est képp ku am la bu waroo mun daal non moy démocratie télévision nationale la. mais télévision nationale la di. seen cadre ñu analyser. moy démocratie télévision nationale la télévision nationale ñun ñëpp ko donc la gestion de Racine Tala mais mais mais une gestion bu nga xam ken ko parce que mën lo yor ay travailleurs def ay en pleine émission tu tu oses appeler les gens di leen wax nangam ak nangam si résultats élection présidentielle yi defe si je ne me trompe pas hmm. xaw ma législative si en pleine émission quest nga que nous def journaliste xaw leen minimiser sax ba ñu dellu ginnaaw dans une dans une démocratie ça c'est pas normal moo tax Pape Alé ah, Pape Alé nag foofu la ko Sénégal na une radio télévision nationale bu nga xamante ni Sénégalais yëpp dinañ ci gis seen bopp RTS day taw ba nga gis mu wane ay inondation du ko def du ko def wala soit buy wane xolal da ciy wane loo xamante ni amul benn gravité. après la pluie c'est le beau temps c'est nag RTS doit être une réalité quand réalité bu Sénégalais yëpp di gis seen bopp man loolu laa gëm te gëm naa ni Pape Alé Niang dina dina dem ci dynamique boobu.

donc tout en espérant que ni. te liggéeykat la nag Fallou. surtout Fallou. surtout Pape Alé ak lu ko mbaay mën a waxal. Hmm. jàmbaar la nag. liggéeykat la te bu xeex jotee pour réew mi laa de. Hmm. dina xeexal réew mi. da koy xool rek ci régime yi mu fekkee fii yëpp régime mu président Abdoulaye Wade. Hmm. xool ni mu jàppale woon Macky Sall. plateau bu ne invité na ko fa. di ko may sens di ko may occasion mais Macky moom la njëkk a toroxal gis nga ci ab ab bi euh, euh, Macky Sall bi gis nga ba ni aujourd'hui dafa dafa dafa dafa jaay Pastef. il est comme ça te maa la ni RTS day changer ligne éditoriale RTS bi ñu jëm ni bokk ak RTS parce que faut évoluer quand même aussi. changer un peu les paradigmes changer les changer le modus operandi. loolu je pense que c' est important mais hmm. RTS boo xamante ni voilà lu nguur gi bëgg loolu lañ bëgg bu réew mi doon takk sax ganeen duñ ko génnee ce n'est pas normal am na nag maa ngi gis ay tuuti tuuti changement nag waaw am na yoo xam daaw ñu ci wax mais ñu ngi ciy wax comme le cas de Walfadjri bi xam nga man ba ma ko gisee keroog muy wax mais dama ni ah changement mi commencé am hein. changement mi commencé ah, am mi mais yalla na jëm kanam alors donc mi non exactement waaw yalla na jëm ak li nga xamné que moo la RTS ki nga xam ne moo di Pape Alé aussi mi ngi fàttaliku cadre yi nga xam ne itam Diomaye moom la ko daal di dénk que ni euh jub jubal jubbanti fexe itam ba RTS nga daal di koy jubbanti waaye itam képp ku fi Sénégalais nga daal ci wala mën a gis sa bopp bu baax a baax baax baax son credo mu euh quoi comme sûr mm, de couvrir les activités de l'État mi ngi si batay tey waaye dina daal permettre aussi l' opposition pour ñu daal di war a mën a wax seenu xalaat par rapport ak li nga xam ne que moo di toxinu dëkk bi euh, fii si Sénégal exactement alors donc mi ngi noonu par rapport ak passation de service yi tey bëri woon na lool mais li si gën a fës nag bokk na CDC ak ki nga xam ne que moo di euh, Pape Ali aussi tey jii saanu que RTS ak Racine euh, Talla sànq ñu ko doon daal de wax ma ni kon nag c'est acté Serigne ñi xamal que ni à la dernière minute coup des comptes publié na